sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi dellusiwaat di sant mbokk yi ci niñ ko daan defee ci at mu ne wala li ëpp ci at yi bopp bañ tàmbale seen dawra bi ba léegi ñi dina ci jox ab cër liñ ci jàppalante ak ñoom di rafetlu liggéey bi ni muy doxe di leen ñaanal it mu jëm kanam waxtaane li nga xam ne mooy xool waxtaan wi mu tudd muy ususu dawlati fi lislaam xilaafatu Omar ibni Abdul Aziz namudaja maanaam état ci lislaam piquet yi nga xam ne ci lay taxaw nga xam ne bu doon ab néeg da naan lii mooy jën ya wala bu dem taax nga ne lii mooy poto yi loola lu rëy a rëy la ndax luy taxaw lu nekk dafa am lu koy yanu mu taxaw la koy yanu su fa nekkatul mu daanu lislaam taxawal état ci biir lislaam moom it mënta ñàkk ay kenn comme ni nga xamee ne yeneen yi lislaam taxawal mënu ñoo ñàkki kenn boo demee ci jëmmi lislaam ci boppam daa ami kenn ñu ne la juróom la juróom yooyu suñ màbbee waliyaatu billah lislaam daanu maanaam comme màbb ci sag yow lépp sax duñ màbb waaye comme màbb ci sag wàll yow sa lislaam daanu na bu ca daa màbbee it sa lislaam rëng-rëngi na am na ci yooyu nag suñ ma abbee sax moom foofu sol islam dem na kon kenn yooyu ni ponki julli toll ci lislaam kenn yooyu noonu lañ toll ci état ci wàllu lislaam li tax ñu tànn nag jëmm joo xam ne ñu tànn te mu waxtaan moo tax ñu tànn ko muy ku mel ne Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah damaa jàpp ne loolu am nañ ci tawfiix ju mag ndax lislaam ginnaaw ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la wàcc mu jaar fam jaar ba ci taxaw ci Madina mu yor ko di gouverner lépp loo xam ne état ko soxla mu di ko doxal mu jóge fa ñeenti xalifa wuutu ko kenn ku nekk defe ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon defe gannaaw bi ñeneen dox fa ñu bari Omar ibn Abdul Aziz door a ñëw ma ne su fekkoon ne dañoo tànn xolu waxtaan wi joxe misaal ma mu doon Abu Bakar wala Omar wala Ousmane wala Ali ridwanullahi alayhim ajmain kon nit mën na naa ñooñu kat ci keppaaru yonent bi lañ yaroo moo leen yaral boppam ba alquran ne leen baax ngeen kon ñooñu luñ defati du doon kéemaan waaye nag suñ demee ba jëmmi jamono ba jamono yàqu nga xam ne li dox diggante Omar ibn Abdul Aziz daanaka ak saxaaba yi état yi fi taxaw yi ci bëree bëri rëng-rëng ga na dayo tooñ gafa fa nekkoon it jéggi na dayo am nag ku ñëw xam ne bokkul ci saxaaba yi waaye bokk ca taabiwoon ya muy Omar ibn Abdul Aziz te bokk sax ca taabiwoon yu ndax su et un la juddu su et un ci gàddaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la juddu kon bokkul ci taabiwoon yu mag yaa mag ndax balaa xàmmee bay riwaaya dana fekk lu bari nag ci saxaaba yi dem kon kooku mooy Omar Aziz ci état bi mu yoroon ci dawlal umawiya ci lañ ko boole maanaam bani umayya seen état yi ñu doon taxawal moo doon dox ba agsi ci Omar moomu Omar nag bàyyam Abdul Aziz la tudd moo tax ñu ne Omar ibn Aziz Abdul Aziz Marwaan a ko jur marwaan ku ñu wax alxakam moo ko jur moo tax marwaan ibn alxakam kooka ibnu abil aas maanaam abul aas moo jur xakam umaye jur ko abdu shams jur ko abdu manaaf jur ko kon nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo dañ ci ma ci ay maam kon ci quraish ci la bokk borom xam-xam yi nag omar ibnu abdul aziz ku mag a mag a mag lañ ko jàppee moo tax al imaamu dahabi ba mu agsee ci tarjaam daf al imaamu al xaafis al allaama al mujtahid al zahid al aabid yooyu la ko booleel nee na imaam la xaafis la xaafis bi ñu ko waxee ci borom xam-xami addis ku mag a mag la nee na la maanaam fa xam-xam bu ñuy fàggu yem ci xam-xamul islaam foofu àgg na fa mujtahid la mooy dem na ba nga xam na mën naa farlul boppam ci fiq ba xottil boppam am ngir ku dëdd woon àdduna la it jaamukatu yàlla la woon mu teg ci ne amirul muminin abu xafsin al qurashi al umawi al xalifatu rachid kooku mooy omar ibn abdul aziz yaayam it soriwul ndax yaayam umu aasim lañ koy wax mooy dàkkeen falam waaye layla la tudd Layla moom yi Aasim doomi Omar ibn al-Xattaab moo ko jur kon Omar ibn al-Xattaab mooy maami yaayam kon loola euh, man mën a mel ëllëg du jaaxal kenn ku jàng taarix Omar ibn al-Xattaab xool siiraam xool man meloon ci wàllu àtte ak doxal su amee ku bokk ci ay sëtam mel ni Omar ibn Abdul Aziz du la jaaxal ñuy bind ci wàllu histoire am na ci ñu xaw a juyoo ci kañ la juddu waaye li ci li ma wax léegi mu di soixante et un la judd Omar ibn Abdul Aziz nag Madina la yaroo ndax bi mu nekkee xale ba tuuti e, fekk yaayam nekk fa ndax yaayam dafa nekkoon ca e, dafa nekkoon ak ñi nga xam ne ay sët yi Euh, baayam lañ maanaam ay ay doomi baayam la nekkaloon wala ñenn ñi doon ay baay ci moom maanaam ay baay tax kon ñooñu Madina lañ gënoon a bare yaayam dafa nekkoon mu juddu nekk ab xale bi mu xàmmee da daan lu bare bare bari ci Abdullah ibn Omar ibn Abdullahi ibn Omar ibn al-Khattab nga ci moom boobu seetee yaayam da daan ñëw di fa yànd bu mu ñëw yaayam nee na léeg-léeg sax mu ne ko yaa umma ana uhibbu an akuna misla xaali man daal ni ma gisee sama xaal bi xaal moom wala fu jaay la ko wax waaye nag naar fi mu koy jëfandikoo gën naa yaatu foofu maanaam arab yi fi ñuy jëfandikoo baatub xaal gën naa yaatu ni jaay ndax Omar ibn Abdullah ibn Omar ibn al bu doon ci wolof du ni jaayam waaye maam lay doon ci moom waaye mu na ko man daal kii ma gis damaa bëgg a mel moom bi mu demee bay ci nekk mag baayam Abdul Aziz ibnu Marwan ñi mu dem Misra pour dekk foofa ab gouverneur bi mu fa ci la bindee leetar yónnee ko Umu Asim muy yaayu Omar ibnu Abdul Aziz ne ko na nga ñëw te ànd ak Omar indaale ko mu am tuuti ak jaaxle ñëw ci Abdullah ibn Omar ibn al di ko tàggu won ko leetar bi mu ne ko demal sa borom kër kat fu mu ne la nan dem foofa toppal ca waaye nag xale bi bàyyi ko fi daal koy digal mu bàyyi fa Omar ibn Abdul kon loolu mooy sababus mu yaroo Madina ak demam Misra yeex na lool te dafaa dem rek del siwaat Omar nag ba mu nekkee xale bu tuuti tàmbali di xàmmee gis ni Madina mel ak riir meeg xam-xam beeg borom xam-xam yu bari xam nga li ñu tuddee alfuqaha u saba ñoom ñëpp biir Madina lañ dëkk ak yeneen borom xam-xam yu bari kon dëkku xam-xam la boo xam ne rythme bi mu yore lépp xam kon bëgg xam daanaka daf koo judduwaale daf ko xàmmewaale dafa xam ne rek ñu dugal ko mu daal di jàng alquran daal di koy mokkal daal di tàmbali nag ñu seet seetlu ci moom ak bëgg jàng. fu ñu dégg boroom xam-xam buy jàngale mu ñëw toog di déglu bu wéetee du jaxasoo ak nit ñi lu bari waaye ay téeréem lay yor rek di yër di yër kon noonu la nekke loolu moo tax bokk na ci sëriñ yi nga xam ne jàngee na ci ñoom ab lim ci saxaaba yi euh, limitam ci taabiroon yi ñu ci bare bari abdullah ibni jaafar ibni abi talib saib ibni yazid sahl ku nekk xam naa saxaaba yi la bokk bokk na ci ñi Omar ibn Abdul Aziz taqaloon di jàng ci moom ba benn am na benn kaas boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko daan yor di ci naan yàlla dogaloon mu mujj ci loxo Sahl ibn Saad Omar ibn Abdul Aziz ñaan ko ko mu may ko ko kon loola ci lu mu yore woon la benn bis bu doonagul mag lool waaye man nga alxuraan ak njàngam rafet mi daana tax mag ñi di ko jiital léeg-léeg mas naa jiite ci julli goo xam ne Anas ibnu Malik ma nga ca biir bi mu salmalee mu ne maa raaytu ahadan ashbaha salaatan bi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min hada alfata musumaa gis ku ak julleem nuróog julli yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba mel ne julli xale bii booba Omar ibnu Abdul Aziz lay wax te booba gone la Ah, Omar baayam daf ko tànnaloon ak jàngalekat lii may wax na yu am solo la ndax xam nit ki fu mu jaar ba mel nii mu mel Omar doonul koo xam ne daa jekki noonu mu meloon fekk yàqu gi mel nam meloon mu ñëw defaraat ko doonul koo xam ne dañ koo wàcce asamaan mu ñëw di defaraat wala ñu di ko wax yu mu ñëw di defaraat waaye lam fi fekkoon te loolee nekk fa ba tey loolee ca la ba mel nii bàyyam dafa tànn borom xam-xam bu mag buñ xamee ne Madina la toog muy ku ñu wax Saalih ibnu Kayfaan mu bind ab leetar jox ko ne ko kon boole naa la ak Omar ginnaaw ñoo ngeen noonu la bëggee xam-xam noonu la bëggee njàng na taqoog yow féetewoog yow ci wàllu yàlla ndax ñoom daawuñ doyloo rek nen na ko diw jàngal waaye na ko diw jàngal yar ko su fekkee ku mën a boole jàngale ak yar la su ko mënul day wax dangay jàng ji ci diw te dem yaayoo ji ca diw yooyu dañ ko daan def Saalih ibn Kaysaan nag la ko gënoon a itteel mooy euh, yar bi bi mu koy yar yar na ko ci bëgg xam-xam waaye yar na ko ci jaamu yàlla ak fonk jàkka da def su génnee di dem di julli ji mu topp ci moom benn bés mu dem julli ji ba delsi fekk Omar génnul mu ne ko lu xew mu ne ko man de dama doon peñe sama bopp far tarde mu ne ko sa kawar gi kon moo la gën a julli wax jooju rëy ci moom lool ci Omar ibn Abdul Aziz nee na kàddu gu mel noonu ci mooy kàddu gi gën a diis ci gum mas déggee ci moom waaye yëpp ca la ko mujj déggee ci moom kon ab yar la boo xam ne foofa la daal di jàjjoo lu mel noonu defu ko kon jël na lu bari ci ay jikkoom ba benn bés bàyyam dem aji muy Abdul Aziz ibnu Marwan wàññi ko jaar Madina bu dikkee nuyoo Madina ba àggal Saalix ak na Kaysaan ñëw mu ne ko sa sa xale ba mu def mu seedeel ko seede bu am solo mu ne ko maa xabartu ahadan allahu azamu fi sadrihi min hada alxulaam maanaam xawma kenn koo xam ne xale bii fi mu teg yàlla kooka teg na ko foofa kon kooka yàlla màgg na ci ëpp dënnam am na nag yeneen i jàngalekat yi ci yarkat yoo xam ne jël na ci ñoom nag jikko yu bari bokk na ci ñooñu Ubaydullahi ibn Abdullahi ibn Utba ibn Mas'ud Ubaydullahi moom it ci alfuqahaa saba la bokk Abdullah Ubaydullahi dafa bokkoon ci géeji xam-xam yi Omar ibn Abdul Aziz ñëw toog moom jàng ci moom yaru ci moom di jaabante di dem ci moom ak ñëw bi mu demee ba doon magit nag ba doon kilifa Ubaydullahi ci boppam da daan jóg di ko seet si ca kanam da nga xam ne Omar ibn Abdul Aziz demoon na ba nekk gouverneur Madina waaye dañoo wax ne Ubaydullahi ibn Utba moom benn moo mas a doon euh, amir boo xam ne jaral na ko mu jóge këram ñëw di ko seet Ubaydullahi daana jógee këram ñëw seet si Omar ibn Abdul Aziz moom sax moo ko bindoon bayit yu siiw yooyee jëmale ko ci moom ne ko bismilladi unzilat min indihi suwaru walhamdulillahi amma baadu ya Umaru in kunta taalamu ma tati wa ma tabaru fakun ala xadarin qad yanfau alxadaru wasbir ala alqadari almaxtuumi warda bihi وإن أتاك بما لا تشتهي القدر فما صفى لامرئ عيش يصر به إلا سيتبع يوما صفوه كدر kon ay bayit la ko bind yónnee ko ko moom Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba waaye bayit yi waaraatekat la itam ndax ma ngi ko ci wax na ko gannaaw bu ma la nuyoo yow Omar na ngay wattandiku foo toll ndax wattandiku dana jëriñ di ko wax ne ko na nga muñ bépp dogal boo xam ne wàcc na ci sa kaw saa boo xamee ne am nga lu la neexut ma ngi ko ci wax ne ko kat ah, amul benn dund boo xam ne day teey rek di wéy maanaam di neex rek di wéy lu dul na nga gis ne neexaay boobu day dem ba mu yàgg mu nëx maanaam day dem ba mu yàgg mu nëx su fekkee neexaay bi wér bi yaram a ko waraloon day dem ba mu yàgg feebar dikk su fekkee ak ndaw ko ndaw a ko waraloon ak kattan day dem ba mu yàgg màggat dikk su fekkee ne am ama ko waraloon day dem ba mu yàgg ñàkk ñëw su fekkee wér a ko waroon nekke noonu ba day dem ba mu yàgg feebar dikk kon loolu waaraate bu mel noonu la ko waar bokk na ci ay sëriñam yi mu jàngee yëpp eh, ibn Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab fii nag danañ fi jëriñoo benn bind boo xam ne danañ gis ne jël ndaw teel koo jàngal teel koo yar lu am njariñ la mooy jiitu te it danañ fi jële ne boroom xam-xam yeeg yarkat yi ndaw ñi nga xam ne surtout nañ ne war nañoo mën responsable ci kan responsabilité ci kanam war nañ leen jox itte ci wàllu jàngal ak yar ndax léeg-léeg gis ndaw ñoo xam ne da xam ne seenu yawute ak seenu moosaa yeeg seen seenu xarala ak njàng mañ nekk ku mel ni war naa mën a dem ba yor responsabilité bu mag a mag ci réew mi su ko defee kooku ñu jox ko yitte nag ci jàngal ko ak yar ko bind bu mag beneen bi moo di e, li jullit yëpp bëgg te di ko xemmem fuñ toog fu nekk tey ñaan yàlla mu amal ko kenn ku ne di kër kër yi mu am mooy dem ba yàlla warsugali leen njiit loo xam ne day mel ne Omar ibn Abdul ñu xam ne njiit lu mel noonu di jékki-jékki ne lay yëfi béréb rek ne cëpp daal mel ne moom waaye day am fu ñuy jaar ak moom kon loola lu ñuy amal tàmbalee ko ca suuf la di ko jàngal ak di ko yar ca niñ yéenee na noonu lay mel ndax kat ñu dul jullit yi biñ yore seeni projet yoo xam ne dañoo bëgg a am ay njiit yoo xam ne nii la ñuy mel ñooñu dañ leen a jël jàngal leen yar leen ca loola bañ mel noonu ñu màgg ñu jaar ak ñoom fañ jaar ak ñoom bañ mën a doon ay njiit ci seeni réew yor projet yi ña leen yaroon di doxal doxalin wu mel ne waleen neex kon nag jullit yi ñoom ci seen jëmmi bopp suñ bëggee ñu mel noona du caa gi ni sàmm nit ñi daaneel leen indi ñeneen moo koy indi wala dara waaye tàmbalee ca suuf jàngale yar formé ba am nit ñoo xam ne wóor na leen ñii ku ci jiite am réew ku mu mën a doon baax képp lay def su boobaa loola mooy yoon wa su boobaa loola mooy yoon wa Omar ibn Abdul Aziz place bi ci wàllu xam-xam dañoo wax ne kaana min a'immati zamanihi ci imaam yu mag yi ci jamonoom ci la moo tax al imaam Malik ak al imaam Sufyan ibn Uyayna ku ci mos a wax ba tudd Omar ibn Abdul Aziz imaam ngay jiital al imaam Omar ibn Abdul Aziz loolu ma ngi ci seen i téere Mujahid nee na ataynaahu nuallimuhu fama baretna xata taallamna minhu nee na dañ koo jàpp woon koo xam ne noonu noo war a jàngal ndax noonu lañ xamoon ci amir ñun borom xam-xam yi dañ daje ci umaraaw di leen jàngal waaye nee na borom xam-xam bu toog fi moom bala ngaa mu jàngal la foofu maqam fa la nekkoon moo tax Maymun ibnu Mahran mu ne kaana Omar ibnu Abdul Aziz muallima al ulama nee na daf daan jàngal borom xam-xam yi al imaamu Shafii nee na al xulafaa rachiduna xamsa nee na xalifa yu jub yi fi ñëw gannaaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na juróom lañ daal leen di lim mu ne Abu Bakar wa Omar wa Ousmane wa Ali wa Omar ibnu Abdul Aziz al imaam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah nee na jële nañ ci xadiis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla dana yebal ci bopp téeméeri at yu nekk kuy ñëw ngir yeesalaat diine ji nee na fa nazar fi lmiati l nu xool téeméer yu njëkk yi fa huwa omar ibn abdul bi ñu xoolee téeméer yu moo tax alimaam ahmad day wax ne laa adri qawla ahadin min attaabiina xujja illa qawla omar ibn abdul aziz kenn koo xam ne am na ay boroomi xam-xam yuy wax ne diw sàngam ci taabiyoon yi la bokk te waxam luñ mën a sukkandiku la maanaam mu nekk xujja nee na xaw ma kenn koo xam ne ay borom xam-xam waxal na ko loolu tam bokk ci taabiyoon yi ku dul omar ibn abdul aziz xam nga ne saxaaba yi moom lu bare bare bare ci borom xam-xam yi bokk na ci seen usuli mazhab mooy woote saxaaba yi ci boppam saxaaba yi bu bokkee loolu fujja lay doon kooku bari la nañ ko waaye nag bi saxaaba yi jeexee ba taabiyoon ni sës fi nag ku ñuy waxal wax ju mel noonu al imam ahmad ibn hanbal nee na mel na omar ibn abdul aziz laa gis wax ju mel noonu ñu mas ko koo waxal ci bu ñu xoolee leer na tuuti ci ay doxalinam lu jiitu muy nekk amirul muminin ci weeru rabiul awal ci atum quatre-vingt-sept ci la ko xalifa bu ñu wax alwalid ibnu abdul malik tànne ngir def ko gouverneur madina maanaam mu nekk amiru madina mu continuer nekk fa yore madina ba ci atum quatre-vingt-onze mu dollil ko ca beneen wilaya bu ñu wax taayif ci kaw ni ñi ko sàkku nit Abdul aswaari alxijaas bi ko ko alwalid waxee nag ne ko damaa bëgg jiite euh, madina nekk amir ba dana ko ñetti charte laa am yoo xam ne soo ko nangoo ma nangu ko soo ko nanguwul ma ko nangu mu ne waxal mu bu jëkk bi an yu'mala fi nnaasi bilxaqi waladli wala yuzlamu ahad mooy ñu jëfandikoo lépp loo xam ne xeeti maandu la ni ko lislaam jàngale kenn bañ a kenn noonu lay àttee mu ne ko benn mu ne ko ñaareel ba mooy nga may ma ci at mu njëkk mi ma dem aji dellusiwaat ndax damaa ajagul woon mu ne ko ñaareel ba ñetteel ba mu ne ko an yusmax lahu bil ataai an yuxrijahu linnaasi fi lmadina maanaam jamono yooya région yi ni ñu doon doxe ci biir état bi mooy fu gouverneur nekk lu mu mën a dajale ci alal loo xam ne dafa jële ci réew ma da koy yónnee amirul muminina fa nekk su ko fa yónnee ba àggal da nga xam ne lii mooy budget état bu mag bi ba àggal réew mu nekk mu jox la jox la dara loo xam ne ci lay doxale maanaam état bu nekk wala région bu nekk mu jox la loo xam ne ca koy doxale sa say mu ne ko nag man lii sama sart mooy lii diw ne Madina ne yemaat ci Madina ba ñu ñëw ci yow ba ba door a del si waat mu ko waxee yëpp ñu nangul ko mu tàmbali ab liggéeyam nee nañ wa fariha bihi ahlul madinati faraxan shadidan waa Madina dañoo am mbégte moo lool ci moom ndax fa la yaroo xam nañ ko xam nañ ne kii ko jiite am na muy indi bokk na ci yi gën a ci yam fa def ci Madina ba mu fa toogee te amu fa woon la ko jiitu mooy sos loo xam ne majlisu shura la ko tuddee bu doon léegi ci jamono ji day xewal woon li ñu am assemblée waaye nag lii moo gën a xóot dafa woo fukk ci borom xam-xamu Madina fukk ci borom xam-xamu Madina yoo xam ne wal fuqahaa u saba ñëpp a ngi ci biir lu juróom-ñaari fuqahaa yu mag yu siiw yi ñu ngi ci biir mu ne leen li tax ma woo leen gannaaw boo xamee ne sant na yàlla julli ci yonente mu ne leen li tax ma woo leen dama leen a woo ngir mbir moo xam ne da ngeen ca am ab yool te da ci mën a yëkkatee dëgg mooy bëgg naa def mel ni mbir lu dul dama cee diisoo yéen ba jël ci seen xalaat wala su dul yéen ñëpp it ña ci yéen ma gisoo ci ñoom ba jël xalaatam ñu ne ko nagal nañ la loolu mu ne su fekkee ne gis ngeen kenn ku jalgati wala mu tooñ wala mu am ku néew doole ku nekk fu béréb ñu tooñ ko képp ku yëg loola ko jot si liwoo ma ko bàkkaar ba gàll naa la ko fa kanam suñu borom kon woowu yam boobu yoon da doon kon mbir mu rëyandoo mooy tànn borom xam-xam yi dëkk ba ñu fa xam-xam def leen ñu nekk ay mustashaaroon nga xam ñoom lay diisoon kon loolu ci lii tax état taxaw loolu ci la bokk mooy ñu ñuy diisoon di jël seeni xalaat ñu doon ñoo xam ne xam-xam lañ noonu nag la def biñ demee ba jamono Suleymaan ibnu Abdul Malik moom daf koy jële foofu indi ko def ko mu nekk wasiir nekkit mustashar jël ko ne ko yow daal Omar lii daal sama xol mooy nga nekk ci man ndax musuma nekk ci mbir mukk ba jaaxle ca lu dul sama xel dem na ci yow maanaam mbir moom mos nekk ba jaaxle ca di buy xool solution nee sama xel dem na ci yow Omar kon kaay fii jege Omar ñëw jege Suleymaan di ko jàppale ci lim mu doon def jàppale na ko nag ci lu bare bare bare ci ay mbir yoo xam ne Souleymane jël na ko ci ay décision yoo xam ne ci Omar la ko jële Omar rek daawul tax wala muy am ay caaxaan waaye lenn lu rek na ko gisee noonu rek la ko ko doon waxee boobu mu di ko ko nangul am na lu bare bare ñu fa newoon ci ay gouverneur rek ay préfet ci niñ ko ma a waxee ci jamono tey ñoo xam ne Omar ibn Abdul Aziz moo ne ko dindil ñii ndax ñii ñooy mbooloo Hajjaaj ibn Yuusuf dañoo dëng ko ci la dàq ko mu dàq ko am na ay tur yu bari yoo nañ ko fi yoo xam ne ñu nga ci biir benn bés dafa critiqué Suleymaan te mooy ahla alghina wa ahla alfaqri bi faqrihim ne ko damaa ni réew damaa gis ne ñi am dañuy gën di am rek ñi ñàkk itam di di ñàkk rek kon lii mbir mi doxewu ni nar a doxe Souleymane la fekk ne déglu na loola benn bis ci jotaayu Souleymane benn waaye dafa ñëw saaga ko saaga Souleymane muy amirul muminin ndax xam ngeen ne jamono jooju jamonoy xawaarij yaa ifrifaan yu mel noonu Souleymane laaj ñu toog ñëpp ne leen li ci seen xalaat fa asharu alayhi bi darbi unqihi ñu ne ko rey ko ci attee ñu rey ko Omar ibn Abdul Aziz ne teel waxul dara Suleymaan ne ko maa laka laa tatakallam yaa Omar yow Omar lu tax ñëpp wax yow nga ne teel mu ne ko amma id saaltani fala alamu sabbatan axallat dama muslimin illa sabbata nabiy musuma dégg aw saada woo xam ne eh, dagan nañu tuur ca deretu jullit lu dul koo xam ne dafa saaga ab yonent ah fa shakara Suleymaan Suleymaan daal koy sant ci loolu daal di ne ko musal nga ma ci tuur dereti jullit joo xam ne ju daganut la kon loolu la nekkee woon ak moom ay misaal yu néew la ci ni mu nekkee woon ak moom bi mu nekkee mustasaar kon ki nga xam ne dañuy diisoo moom ci mbir kooku borom responsabilité la boo xam ne war lay seetlu bu baax baax baax ak xilaafaam nag moom Omar mi ngi tàmbalee ci quatre-vingt-dix-neuf bi Souleymane feebaree Souleymane moom muy Souleymane ibn Abdul Malik ibn Marwan dafa dem ba feebar ki ñu daan wax Raja ibn Xaywa Raja ibn Xaywa nit ku doy waar la ci mbaax borom xam-xam la jaamukatu yàlla la waaye dafa xamoon wàllu état ak politique yëpp ci aju ñi mën a jaarale ci yéen nañ jaarale tarjuma nit koo kii ku am solo nga raja ibnu xayra moo tax Souleymane daf koy jëloon mu sus ci moom rëkk rëkk rëkk liy dugg ak liy génn lépp lay xam daanaka bu doon ci jamono tey dama naan koo xam ne daal mooy directeur de cabinet Souleymane ibnu Abdul Malik bi Souleymane feebare raja ibnu xayra dafa ñëw gis ko euh, Souleymane laaj ko ne ko man de sama xel nekk na ci wootal nit mu ne ko koo xalaat mu ne ko sama doom diw sàngam rajaane cell lu yàgg mu ne ko mbir moo mos ne tekk tekk ju mel nii day maanaam gënalu la mu ne ko waaw noonu la gëne muy lim ay tur ba tudd Omar ibn Abdul Aziz ne ko loo xam ci kooku nag mu ne ko alamuhu wallahi xayiran faadilan saliman kooku day xam naa ko li ma xam ci moom it mooy ku baax la borom ngëneel la ku mucc la ci yu bari kon Adja Ibn Xaywa foofu la junjee loolu joxe xalaat boobu kon kooku yaakaar naa ne dana am tuyaaba ju bare bare bare ci xilaafa Omar ibn Abdul Aziz <coughs> la waaye su ma ko jëlee fiiru ne dénkaane ne moo may wóotu te jëluma keneen sosale ko ci moom koo xam ne dama gannaaw Omar la ca kooku sos duñ ko bàyyi lukk danañ ko yàqal liggéeyam ne ko ni may def mooy damay bind benn leetar la ko nga seet noo koy jottalee daal di bind benn leetar bismillahi rahmaani rahim hada kitaabun min abdillahi suleyman amiri almuminin li Omar ibn Abdul Aziz inni qad wallaytuka alxilaafata ba'di wa min ba'dika Yazid ibn Abdul Malik fasma'u lahu wa atii'u wattaqu llaha wa la taxtalifu fa yutma'a fiikum wa xatama alkitaab daf ne bismillahi rahmaani rahim man Suleymaan mi nekk amirul muminina maa bind leetar bii yow Omar ibn Abdul Aziz def naa la dara ci ab xalifa muy amirul muminina sama gannaaw sa gannaaw nag Yazid ibn Abdul Malik mooy toog dana dina yéen mbooloo na ngeen ko déggal na ngeen ko topp na ngeen ragal yàlla te bu leen juuyoo daal di tëj leetar boobu kaste ko nga xam ne kenn ñu neetu ko ubbi nag Raja ibn Xaywa ne ko gardeel leetar boobu moom yëmut ca loolu moom Suleymaan dafa daal di yónnee ci Kaab ibnu Jaabir al Adfi nga xam ne mooy mu woo ko mu mu ne ko wool na sama njaboot ñëpp ñu dajaloo mu woo ñëpp ñu dajaloo Suleymaan ne leen damaa bëgg yéen ñëpp ngeen jaawante ci li ci biir téere bi ma bind muy leetar bi xamaguñ lu ci nekk waaye nee leen dénk naa nit mu wutu ku ci nekk koo xam ne jaayante leen léegi fii ci sama kanam ñoom ñëpp ñu jaayante bi mu noppee ko mu nga garde ko Rajaa ibnu Xaywa nee bi ma génnee sam bi ma génnee ci kër xalifa bi di ñibbi Omar ibnu Abdul Aziz daf maa bat ne ma seen yii ngeen di def am naa ci njàqare damaa bëgg su fekkee ne tudd na ma ci lii ma bind nii nga wax ma ko ma dem léegi yëgal ko ko balaa mbir mee faat ne ko du ma ko def mënuma ko nee na ma ne ko kum mën a doon day du ma ko wax kenn ndax kóllëre bi ma jëlanteeg moom mooy du ma ko wax nit muy yow muy keneen nee na na ko Omar wanul ko aku jaaxleen Hisham ibn Abdul Malik daal di may dab ne ma yow day am na orma ju dox sama digganteeg yow aku cofeel aku ñu bëgg te it am naa lu ma la dencal dama bëgg nga yëgal ma mbir mi su fekkee ne keneen wax ku dul man mu jóg taxaw léegi balaa mbir mee faat nan ñu wax ba mbir mi ñëw ci man raja ibn xawa jaaraat xam jaaraan ne ko daal sekkare boo xam ne sekkare amirul muminin la daal du ma ko feeñalal nit nee na ma wàññi ko mu nekk ci sukuraat nee na mu daal di wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nee na mu wëlbati ko fekk mu faatu nee na bi ma ko defaree ba sàng ko ma tëj bunt bi génn romb soxnaam mu laaj ma nu mu def nee na ma ne ko moom day day nelaw nee na mu yónni nit bi kooku ñëwee gis ko mu sangu mu dellu wax ko loolu ne ko ma ngay nelaw nee na ma jël nit bàyyi ko ci bunt bi benn gardien ne ko bu fi jógee te bul bàyyi kenn nit mu dugg fi mais bi ma defee loolu ma jël yoon ne Kaab ibnu Jaabir ki yore armée nee ko dajale waatal ma kër waa Suleymaan ñu dajale waat leen ñoom ñëpp ci jàkkay daabe biñ dajaloo ma ne leen jaayante waat leen ci leetar bi ngeen jaayante woon ñu ne ko doon jaayante woon nan ba noppi di mu ne waaw nañ ko gën a dëgëral nee na ñëpp jaayante kenn par kenn nee na buñ noppee nag ma ne leen day sooy bañ leen jóg nag dellu ci seen mbokk muy amirul muminin fa innahu qad maat moom kat génn na àdduna nee na ñu ne inna lillahi inna ilayhi rajiun nee na ma ne leen déglu leen nag nga jàngal leen leetar bi nee na daal di tekk leetar bi ci seen kanam ñoom ñëpp nee na bi ma tuddee Omar ibn Abdul Aziz Hicham dafa jóg taxaw ne laa nubaayiuhu wallahi abadan duñ jaayanteeg moom nee na ma ne ko adrib wallahu unuqak dama jaayanteeg moom wala ma rey parce que moo yore kàttan gi bu diglee mu def Raja ibn na mu jóg dikk jaayanteeg Abdul Aziz ñi ci des jaayante waaye ma geese Omar gis ko fi mu ragloo ñaan yi sotti ko ba fees dell mi ngi lox mel ni koo xam ne ci diggante xel ak xirni ci la nekk nee na ñu jël ko ba dalal ko nee na mu yëg ne responsabilité bu diis a diis wàcc na ci kawam ñu dem mu jullee Suleymaan ñu denc ko fi ñu ko denc ci armeel yi ba noppi mu geesu gis li nga mooy cortège bi ñu daan def amirul muminin ñu ñëw taxaw cortège bi ay fas lay doon yoo xam ne dañ leen di taaral bañ taaral ay feet waruwaay yoo xam ne yéene la ca mbaj yi leer la cay tegeeg jumtuwaay yëpp lu ca dund di xaalis fas yooyu ñëw taxaw wenn fas wu nekk te nga mooy sayta ba ko wëmmat jàpp ci laaj ja ñuy xool wan la ci amirul muminin di tànn nag ngir war ko ndax war a mën a déparé fii door dugg nag ci këru xilaafa bi mu ne leen maa <clears throat> maa haga lii lu mu ñu ne ko lii de mooy maratibul xilaafa mooy cortège bi nga xam ne xalifa bi fu jëm moom lay war nee na mu ne leen man de sama baaba ji ma waroon bi may ñëw fii ci armée yi moo gën a dëppoog man daal di waraat am ñu ne ko da ngaa jëmal ca këru xilaafa ba mu ne déedéet sama kër laa jëm ndax foofa njabootu Suleymaana nga fa sama kër laay taw ba bañ fay jóge daawuñ ko defe noonu fu xalifa bi masaan wàcc faatoo rek dañuy ñëw daal di waa kër ga fi saas ne na leen bàyyi leen leen bañ préparé seen bopp ba génn ba dellu ci seen këri bopp ma door a a jóge sama kër dellu ci ñoom mu toog ci këram noonu la ko defee Raja ibn Xaywa nee na loolu mu def doon lu ma yéem lool ma xam ne ma ci li ma li ma defoon maanaam noonu mu def ci kër gi ak noonu mu def ca daaba ya muy fas ya loolu rafetu naa ko kon ci loolu nag ci la xilaafu Omar ibn Abdul Aziz la tàmbale muy caatum ci sawati siin mu tàmbale nag ci tatbiq nag politique am bi nga xam ne ak doxalinam yi nga xam ne moom la ñuy tuddee ususu dawla nag fil islam maanaam usus yi nga xam ne moom la lislaam tegoon mu nekk fi yooyu la jël rek appliqué ko yooyu bi ci jëkk mooy binaawul insaan maanaam tabax doomu aadama ci boppam ci wàllu aqida ci wàllu axlaaq ci wàllu jëm nag taqwaa ci xolam kooku mooy asaas bu njëkk ci usus yi ñu jëfandikoo ngir tabax état binaawul insaan aqidatihi axlaaqiyaatihi wa garsi taqwa fi qalbi ñaareel bi mooy bastul adli wa rafu zulmi an il umma tasaare maandu te ba mu àgg fépp luy ko ba mu set wecc jóge ci xeet bi ñetteel bi mooy al quwatu idaariya ci wàllu administration laaj na kattan ci ki ko jiite ci li Omar ibn Abdul Aziz lamba woon ci la bokk ñeenteel bi mooy ictimaadu shura mabdaan asaasiyan lil xukm ñeenti ponk yu mag yooyu ñoom la Omar ibn Abdul Aziz jël mu doon foo xam ne fa la teg nguuram su fekkee wér nañu di ko tudde nguur mu tàmbali rek di appliqué loolu du ma séparé ci lii may wax ci kanam par exemple rek laa def un deux trois quatre séparé wu ma li ci aju ci tabax doomu aadama li ci ëpp léeg-léeg ma jiital bi yeexe ci tabax doomu aadama ci xutba ba ñu tabax rek ci lay ndax xutba ba leen wax mooy uusikum bi taqwallah maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla fa inna taqwallahi min kulli shay defet taqwa muy ragal yàlla la nga ñàkk duutu la lor wa laysa min taqwa allahi azza wa jalla xalaf ku ñàkk ragal yàlla ku ko ñàkk loo amati it amul njëriñ kon foofu la départ ak ñoom waamalu li axiratikum mu ne leen na ngeen di jëfal seen àllaaxira kon àllaaxira gisu ko waxal rek waaye daf koy jëfal fa innahu man amila li axiratihi kafaahu allahu tabaraka wa taala amra dunyaahu nee na jëfal leen seen àllaaxira ndax ku jëfal àllaaxiraam yàlla fegal ko mbirum addunaam teg ca ne ko na ngeen yëwénal li seeni mbóot mooy li nekk seeni xol ak li nga xam ne ñoom doon yéen a ko xam ci seen bopp fexe leen ba loola baax yuslix allahu alkarim ala niyatakum yàlla dana defar dana defar seen bitti maanaam defar leen seen biir yàlla dana defar seen bitti wa aksiru min dikri l mawt nee na bari leen lu ngeen di fàttaliku dee te ngeen bari lu ngeen koy waajal lu jiitu muy wàcc ci seen kaw ndax su wàccee kenn mënatu koo delloo daal dina leen xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leen ne wuute wuñ ci seen borom wuute wuñ ci seenub yonent wuute wuñ ci seenub téere wa innama ixtalafu fi dinaari wa dirham li leen wutale mooy alal daa dina wallahi inni la ati ahadan batilan wala amnahu ahadan xaqaa fasuma yéenee jox kenn ak ku mën a doon loo xam ne moomu ko du àqam waaye ku am àqit nag koo mën a doon danaa ko teg sa loxo daa di yëkkati kàddoon ca kaw yaa ayuha nnaas man ataa allah wajaba taatuh ku topp yàlla kooku yoyoon ñu topp ko wa man asa allah fala taata lah ku mooy yàlla kooku kenn du ko topp atiuni ma li fekk naa ngi topp yàlla topp leen ma fa in asitu asitu llaha fala taata li alaykum su fekkee ne ci mooy yàlla ngeen ma gis su boobaa su ñu amatuma leen ma topp bu boobaa daa di nga leen wër ci ay dëkk muy dëkk yu mag ak yu ndaw su fekkee ne ñooña ña ngay topp comme ni ngeen di topp yéen maanaam ñëpp ànd nekk ci njub xamal ne luñ sori sori ak yéen ñu jege ñii ñëpp benn lañ ci man su fekkee nag dañoo dellu gannaaw wala yéen ngeen dellu gannaaw ku dellu gannaaw nekkatuma kilifaam maanaam jotee moom dara néewul danaa ko rey wala danaa ko def nangam waaye fa lastu lahu bi waalin loolu la wax suma nasala xutba ba am na leneen lu ca des loo xam ne fa tàmbalee woon lu jiitu muy def xutba bi am na beneen xutba bu mu defoon danañ ca laalaat tuuti ndax bi nga xamee ne fay nañ ko rek bi mu xamee noonu bañ sotti ko ndox ba mu jógaat ba taxaw am na xutba bu gàtt bu mu def bi mu dajalee mbooloo mépp dañ toog nga xam ne doonatul waa kër Suleymaan waaye waa mi ñu ci nañ foofu la jëkk a defee ak xutba bii biñ jaayanteeg moom ba la ko def mi bii ma tudd kooku mooy jéego bu njëkk bi beneen jéego bu ñaareel bi <coughs> moo di bi mu teg ci wàllu tasaare xam-xam amoon na tamit ci jamono joo xam ne lu jëm ci wàllu xam-xam te xam-xam bu ñu ko waxee ci jamono jooju mooy xadisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax alquran nit ñi ñu ngi koy mokkal ñu ngi koy jàngale ñu ngi ko bind nañ ko itam xadis nag lu bëree bëri bind nañ ko waaye dañ ko bind mu tasaaroo mu def ab liggéey bu rëy muy bind benn leetar boo xam ne da koy yónnee ci mboolem région yi yónnee ko Madina ci ki nga xam ne moo fa nekkoon muy Abubakar ibn Hazm ne leen unduru ma kaana min xadisi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faktubuuhu fa inni xiftu durus al ilmi wa dhahab al ulama xool leen xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xam ne dañ koo mokkaloon mu nekk ci dënn yi te binduñu ko dana bind leen ndax ragal naa ne xam-xam bi bu ngeen wutul mu rab te bu ngeen wutul xam borom xam-xam yi faatu ba jeex te loolu nasiba la kon foofu la génnee benn programme boo xam ne ay nit la yabal ci région yi ñëpp ñoo xam ne ay mokkalkati xadis lañ ay bindkat lañ mu tuddal leen ay nit ñoo xam ne ñu siiw lañ ci mokkal xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu yabal leen ñu dem takkoo ñooñu bind lañ yoroon lépp bokk na ci ñun ci njëkk a tudd soxna suñuy wax Amra bintu Abdurahman al koo kooku dafa bokkoon ci ñi nga ne dañoo takkoo woon ak Aïcha radiallahu taala anha mokkal ci ay xadis loo xam ne ci xadis yi biir kër loo xam ne ñu bare bari nag ci góor ñi mokk luñ ko woon bi muy tudd ay tur ci tur woowu lu njëkk a tudd nekk yow na nga dem ca bintu Abdurahman bind la nga xam ne moom la war ba noppi ngir door a continuer seenu liggéey bokk na ci imaam yu mag yoo xam a dugalal ci biir sax Muslim ibnu Shihab az-Zuhri ak nga xam ne ñoo amoon ci jamono jooju kon kooku teg na talent boo xam ne mooy talent xam-xam maanaam xeet wi su fekkee ne dañ ko bëgg a yëkkati mu àgg fi nga xam ne fa la war moo xam ci wàllu àdduna la wala ci wàllu diine xam-xam moo ko mën a yóbbu foofa waaye aw xeet wu mën a doon su fekkee ne jëmul kanam ci xam-xam soo doon waat ne jëmul kanam su jëmul xam-xam su doon kër di dugg ko génn ba alalu àdduna nekk ci biir loxoom lépp itam xamal ne xeet yi dellu gannaaw la dana gis ñàkk xam-xam boobu yem leen di jëral ci biir mën naa koy faagaagal alal jooju nga xam ne moom lañ dajale kon loolu la Omar xam moo tax mu dundalaat xam-xam woote loolu loolu lépp mi ci biir itte yoo suñ ko doon tudd lu bari la jëmmi maandu nag suñ ko wax ci lislaam euh, dafa boole ñaari ponk isaalu alxaq ila saaxibihi min aqrabi turuq kooku mooy maandute isaalu alxaq ila saaxibihi min aqrabi turuq ki moom àq ji maanaam muy droit am nga fexe ba mu jot ci ca nam gën a yombe kon ponk bu njëkk bi mooy daruratu isaalu alxaq ila saaxibihi mooy àq ji muy droit bi daa war a dem ci loxol borom ñaareel bi mooy da caa war a dem min xëyri bu maa ko la kenn war koo yeexe ñaar yooyu li ci am rek maandu ko daal di damm ñaar yooyu li ci am maandu ko yàqu muy bañ a jox àq ji borom wala nga jox ko di ko demale dikkale bu subaa ba gannaaw subaa nga toog a toog ba maar nga door ko koy jox soo ko joxee maandootoo kon ñaar yooyu benn ci ne dafa bokk na ci Omar li mu xéroon lool ci <coughs> moo tax Omar bi mu dikkee lim fekk ci état yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon yëpp muy xalifa yi ko jiitu gannaaw xulafa rashidin ba ci jamonoom mën nga ne gannaaw Muawiya ibn Abi Sufyan ba ci ak si Tayyar ibn Abdul Aziz diggante boobu la fi dox lépp li ko nekkoon ci tooñ ak fab alali jàmbur kenn xamul nu mu toll te ñu ko daan def mooy ñi nga xam ne ñooy yor état ci boppam Omar a def mooy xam na ne ku bëgg a defar ku bëgg a defar ci sa bopp nga tàmbalee mu tàmbalee ci boppam xool li nga xam ne da ko waral ci ay suuf ak ay bagage ak ay kër yoo xam ne yii ci bàyyam Abdul Aziz la ko doon woon mu ne ñii de ginnaaw ci buur la jaar woon ci man kon alali mbooloo mi la Abdul Aziz moomu ko woon ko doon kon nañ ko delloo ci baytul maal ñu wax mu jël lim amoon lépp delloo ko trésor muy bëytul maal xool gis benn jaaro boo xam daf koo takkoon boo xam ne alwalid ibnu malik moo ko ko joxoon mu ne jaaro bii day ca suufus maghrib lañ ko jële woon te wóor na ma ne ci toog lañ ko jële daal koy dindi joxe ne boole leen ko ci li jëm baytul maal àgg na ci jaasi ji nga ne da koo yoroon moo ko moom moo ko wutaloon it ponk boo xam ne xaalis la woon biñ ko xoolaatee mu ne liy jaaduwut dindi xaalis ba ne yóbbu leen ko baytul maal wut weñ gu ñuul defal ko ko mu nekk ponk ponk jaasi bi kon nag bi mu tàmbalee ci boppam def lii xam nañ ne mbiree ni bëgg a xew benn bés <coughs> ata mi nekk li mu ne Omar dafa jullit ajjuma dafa jot Omar ibn Abdul Aziz mu yéex a génn nit ñu yéex a julli ajjuma lool biñ sëlmalee ñu ne ko axartal jumaata an waqtik yow day yéex ngaa julli ajjuma tey mu ne leen li ko waral xale bi dama ko joxoon yéere ñu yóbbu woon ko di ko fóot mu yéex a wow nee na ci lañ xamee ne mbubb la am ci koo xam ne koomum àdduna mu ngi ci sa loxo kon foofu la Umar tàmbalee noonu mu doon jëflanteeg boppam it foofu la yem Rabia ibn Haywa nee na Omar jamono yi nga xamee ne dafa nekkoon Madina ak ndawam ku ko xamoon ak ni mu meloon ni mu boppam ni daan def kawaram ak bi nga xam ne ni nee nañ ne kii mooy na bu ñu nekkee xalifa weer na dikk xëy na lim am lépp ci ay yére muy toll ci fukki dërëm ak ñaar maanaam lim am fukki dërëm ak ñaar bu ñu ko waxee du dara loo tax mu ne qawwaltu siyaada Omar ibn Abdul Aziz wa huwa xalifa bi isna asara dirhaman mu ne loolu mooy colom koo xam ne xazainu dawla ala wajhi dawla bi gën a rëy ci kaw suuf ay magasin ci sa loxo la nekk pare Chine ba France jamono jooju état islam foofu la ku noonu la toll kon loolu ko wan woyof nekk la ci boppam wëlbatiku ci soxnaam mooy Fatima nekk man li nga xam ne moom nga war a tey ci alal ak ay gànjar moomeel yooyu delloo leen baytul maal man ak yow ak alal jii ma gis mënunoo bokk nekk ci benn néeg mu delloo ko ñu ngi nekk ni ne jamono yi nga xam ne dem nañ ba Omar génn fi àdduna Yaziid ñëw daa woo Fatima mu ñëw mu ne ko yow de Omar da sa alal yëpp da ko yóbbuwoon baytul maal kaay ñu joxaat la sa alal mu ne ko kallaa wallaahi du ma ko def ne ko maa kuntu utii'uhu hayyan wa a'siihi mayitan doonu na koo xam ne dama koy topp suy dund su génnee àdduna ma di ko mooy alal jooju soxlawuma ci dara kon noonu la yare woon boppam noonu la yare woon soxnaam bi nga xam ne ñoo doon buur yeeg umara yu ndaw yeeg yu mag yeeg nga xam ne ñoo ñeneen bu doon ci misaal da nga naan mooy cheikh cheikh doomi cheikh yeeg yëpp yi waat ñi leen wër noonu nga xam ne li ñu war ci gànjar boo xam ne kenn xamul fu mu jógee kenn mu toll ci loo xam ne nee na alxulafaa wa rachidoon amuñu na mu ne leen lii ngeen yor eh, dañ koy delloo ci baytul maal li ngeen ci moom lépp mais eh, nag jamono yooyu nag dëkk ba xaw naa yëngu waaye buñ ko xoolee gis amul bi ci àndal muy dogu gi ak ñàkk caaxaan bi nga xam ne ci boppam ñëw ci soxnaam mu buub ko delloo ko baytul maal ne leen askan wee ko moom moomunu ko ci leen xamal ne mëneesu ci dara kon dogu boobu moom quwwatul iraada boobu ànd ak al quwwa al idaariya ñaar yooyu moo àndandoo ngir Omar mën leen a convaincre mu ne leen li ngeen yoroon lépp da ngeen koy indi topp leen topp kenn la nga yoroon lépp ci loo loo xam ne wóor na ne lii moom moo ko mu jël lépp dal la ne leen nag ginnaaw da ngeen ay salaire loola doy na leen sëkk ndax jamono jooju état bi ay salaire daf ko yeneen borom xam-xam yi ak ñi nga xam ne ay umara lañ dëpp leur responsabilité daal am na salaire bu ñuy tuddee amul mu wàññi mu wàññi seen salaire yooyu ne leen yéen li leen yor dafa ëpp jox leen rek loo xam ne lu yem ci ñoom képp la ba nga fi nag jëlee leen ne leen da ngeen di liggéey comme ni ñu ci def ñëpp di liggéey waaye nit ku toog ñu di ko fay te defu ndaw loolu amul xanaa amul ci état allahu akbar ay bind la yoo xam ne ci suñ jamono tey dañoo xam ne islam foofu lay tàmbalee foofu nekk am ñoo xam ne dañuy mer ni ci yàlla mooy fi yàgg nangam nangam lu nekk waaye bu ñu doxee bële tuuti nga gis ne lii la doon def yéen ci loola mu génn benn décret lettre boo xam ne da ko yónnee fépp ne fu doomu aadama nekkoon joo xam ne nit mos na koo tooñ jël alala muy ab amir wala ku ko ëpp doole wala dara tam am firnde bi wan ne moo moom jooju ñu dalil boobu pour ñu delloo ko alalam loolu it nekkaat gëneen ak jëngu nit ña tàmbali kenn ku nekk ñëw sama suuf sàngam day amir sàngama ko nangu woon sama suuf sàngam borom alal sàngama ko nangu woon indi ay firnde muy nangu yooye di delloo ba benn bis am benn waay boo xam ne dafa jógee Basra xaw naa sori lool ak Saam am koo xam ne dafa fukkoon suufam yor ko mu ñëw kalaame ko ci ñoom ñooñu Omar delloo ko suufam ba àggal ne ko kam anfaqta fi majiika ilayya ñaata nga fere ci départ jóge gi nga jógee Basra tukki ba ñëw Saam mu ne ko yow amirul laaj ci li nga xam ne moom laa fere ci yoon bi yow delloo na ma sama suuf soosu te suuf si nga ma jox tey moo ëpp miati alf dinaar maanaam kon waa ji ab millionnaire la fi mu toog di wax nii bu nekkul sax milliardaire bu dee ci suñu jamonoy tey Omar ne ko li ma la delloo loolu yaa ko moom waaye nag coono bi ñu la teg nga jóge fële def say fere ba ñëw fii muy tukkib ay fan loola tam di si ko seetaan daal di digal nit mu wàññeel ko lu ci si tiina dirhaman muy juróom-benn fukki dërëm ñu wutalal ko fere yi nga xam ne moom la defoon ci tukki boobu benn bés menn mbooloo dafa ñëw moo xam ne dañoo xuloo Rawh ibn Walid ibn Abdul Malik Walid ibn Abdul Malik mooy ki nar a wutu Omar moom la ñu tuddee waliyul amr mooy ki sës ci moom rek mooy premier ministre doomam nag doomi euh, Walid muy Rawh dafa xuloo ñoom ne moom dafa jël suñuy cantine yi ñu amoon ci marché bi ñu àndandoo ñëw indi seeni firnde yuy wane ne ñoom ñi ñoo moom cantine yi Omar ne leen dem leen jël seeni cantine ñu génn dox ñaari jéego di leen tëkku ne leen maa ngi yéene dana xam naa fa may dajeeg yéen ñu dellu si waat ne ko mi ngi nii dinu tëkku kat mu daal di woo benn police ne ko àndal ak ñoom bañ jot seen suuf bañ génn lam am bañ dugal lañ ko moom nga dellu si te woo na ko mu ñëw bi nga ko woo ñëw mu ne ko boo ko jaaraatee dana dagg sa roox dem toog kon maandu tege jéego bu njëkk bi mooy xool alal yi nekkoon ci réew mi te ñi ko yor moomuñu ko ñu jël ko delloo ko ci li réew mi moom ngir askan wépp bokkaat ko boobu jéego bi jéego boo xam ne bu yomb la te ma ne bari na réew yi yàqu jéego boobu bu ñu ko setti woon rek ñu delluwaat ci seen jàmm buñ ko setti woon rek ñu delluwaat ci seen jàmm beneen jéego bu ñu mooy ak tabaqir fi ixtiyaar al bi ñu tuddee idaaratul mawaarid al bashariya muy source humaine ñi nga xam ne ñooy yow liggéey bi ci boppam na nga leen di tànn pour jox leen responsabilité ci jamonoy Omar dafa soppi ko ndax bi nga xamee ne xas na toog ñi doon nga xam ne gën na ne defar nañ ci wàllu ragal yàlla fekkoon leen fi te bokkoon ci nguur yi nga xam ne ñoo daan tooñ ak di rey nit ñi di jël seeni alal ñoom ñëpp daf leen a wàcce ay tur yu bare bare bare ngi fi yoo xam ne ñuy xajaaj ibnu yusuf lañ àndaloon ci jamono Suleymaan ñëpp daf leen a wàcce ba ñu wàcc mu wàcce waale ki nga xam ne moom lañ doon wax Xaalid ibnu nga xam ne ku mas di daggalu aw loosam rek moom mooy dagg mu woo ko ne ko wàccal daa dina yaa Xaalid da haada sayf jaasi ji la yoroon ci suuf allahuma inni wadaatu laka xaalid ibn rayan allahuma la tarfahu abadan wàcce naa ko te yàlla boo mukk yow yàlla daa amr ibn muhajir ku ñuy amr ibn muhajir ne ko kaay mu ñëw mu ne ko yow amr day xam nga ne sama digganteeg yow ak mbokk dogu fi doxu fi lu dul mbokku lislaam ak mbokku lislaam moo dox sama digganteeg yow waaye dama laa dégg ni ngay jàngee alxuraan rafet lool benn ma gis la ngay julli fi béréb boo xam ne kenn gisu la ma seen julli ga na ko rafetal ma xam ne kii ko ragal yàlla la nee na kon yow jëlal jeexi ji gàddu lépp loo xam moo jëm ci wàllu liggéey bi waa jële doon def ñu muhaajir euh, ibnu muhaajir Euh, muy muy euh, waaw xaalis muy li xaalis doon def a mu jox ko loolu xam na ne loolu ko rawal yàlla moo dañoo wax ne ci jamono ne nit ñi nga xam ne dañoo bëgg place dañuy fexe ba jam dara ci seenub jë fexe ba mu xaw a yoo xam ne bu ñu ko gisee dañ naan ci ku bari julli la ndax bëgg place yi Omar su fekkee ku ragalut yàlla la benn bis benn waaye dafa ñëw boo xam ku bari ak julli la mu ñëw toog Omar ñëpp it xam nañ ci moom loolu Omar xalaat na ko jox dara ci liggéey boo xam ne da ko ko bëgg a waaye xelam dalut ci moom mu yónni nit nag ci ñi nga xam ne ñoo jege Omar lool ne ko demal nattul ma ko ba xam fu mbiram toll ci wàllu àdduna kooku ñëw ne ko yow day xam nga sama place ci amirul muminin ku ko jege laa mu ne ko loolu koy xam naa ko bu baax mu ne ko waaw léegi su ma doxoon nag ba jox la benn responsabilité yebal la fenn pour nga nekk waali maanaam nga nekk gouverneur wala préfet wala lu mel noonu mu ne ko loolu day soo ko defee danaa la jox dépense at mu ne ko baax na daal di dellusiwaat ci Omar nekk li ko ko ne ko dem naa wax ko waaye lii la ma tontu nee na mu bàyyi ko la mu ko doon bëgg jox mu bañ ko koo jox kon kooku ñii la doon tànne ñi nga xam ne ñooñu lay jox responsabilité ngir ñu war a jiite dara dara ci xeet bi mooy maandu gu ma goo xam ne doo jël dërëm boobu moomu di ko jëmale ci sa bopp kenn laa jariñ itam ba tax nga defal nit ki loo xam ne waroo koo def kenn du tooñ kenn yi tam loo bari bari doole du tax ngay tooñ nit loo néew néew doole it du tax ñu lay jalgati wala ñu yóbbu sa alal bi loolu jàllee nag mu daal di bind ay leetar nag yónnee ko mboolem gouverneur yi gannaaw boo xam ne tànn na leen bañ am ba noppi lii yoo xam ne bii leetar mi ngi jëm ci responsable yu mag yi gouverneur yi ñu mel noonu beneen leetar bi mi ngi jëm ci fonctionnaire yu ndaw yi kenn ku nekk jot sab leetar ñu ndaw ñi lan leen dénk mooy kenn ku nekk na warlu li nga xam ne moo ko war digganteem ak boroomam waxtu julli jot nga dem julli ji jàpp nga dem julli seen maslak saxsi mooy sa comportement say jaamu yàlla sa njub bul dëng bul def dara noonu nga mel boo génnee service bi boo dëkkee ci biir service bi nag taxul ñuy wax ñu nag ñi xam ne yi mu waxtaane ñoom nag ci politique bi xam ne moom la ak yoon bi nga xam ne moom la xotti ci kaw ne réew mi amul ku tuuti koo xam ne dañ naan kii mënees na ko jalgati ba jël àqam loolu amul loolu na génn ci bopp yi bis na ko tey réew yi amatul ku réy koo xam ne dañ naan mën naa tooñ kenn ba noppi dem yoonam loolu na génn ci bopp yi leetal boobu la yónnee ñi nga xam ne ñoo ñu mag daal di tànn nag ñi nga xam ne ñoom lay diisool nee na leen ñetti charte laa ci am bi mu leen tànnee ba dajaleel ba àggal nga xam ne ay borom xam-xam lañ ñu jub lañ ñu baax lañ ba noppi nag door a wax charte lim leen tànn ne leen ku ko ci mënul nga wax ko léegi ñu bàyyi la nga dellu ci sa bu jëkk ba mooy laa taxtaabu wala taibu fi majlisi ahada su ma su ngeen toogee ci sama bu leen jëw bu leen ko ayibal kooku mooy benn charte bi ñaareel bi laa tatasabbasu fi amri dunia maa lam asalkum bu leen waxtaan ci mbirum àdduna li fekk du man maa leen ko laaj dañu mooy xaasiya bi nga xam ne su toogee ñoo ñoo ko war a wër di waxtaan ak moom ñetteel ba mu ne laa tamsaxu wa ana jaalisun abadan bu leen kaf ci béréb boo xam ne maa nga fa kaf ak caaxaan ak reer raja ibne xaywa nee na kaanu yejtamewoona baada al isha nee na ñoom dañ daan daje gannaaw buñ jullee ba noppi fa yetaxaddasuuna fi l mawti wa ma baadahu nee na ñuy waxtaane lu jëm ci dee ak luy nekk ca gannaawam summa yanfadduuna min majalisihim wa ka annama infaddu an janaasa nee na buñ toogee ba ñëpp bay ñibbi di mel dañuy mel ne ku jógee ci ku doon denc ab néew jotaayu bu Omar noonu lañ fa doon loolu boo ko xiyaasee jotaayu buur ya ko jiitu woon waxuma nag buur yi ñëw gannaaw bi taxul ñuy wax waaye da ngay gis wuute bu mag nag boo xam ne bokkul loolu lépp boo ko delloo ci yar bu jëkk bu moo ko waral tomb beneen bi am solo mooy li ñuy tuddee liberté muy may nit ñi nag seen aafiye suñu amee luñ bëgg a wax ñu mën koo wax ku leen koo ñi mën koo jottali yu mel noonu kooku itam Omar dafa def liggéey bu mag boo xam ne ci dawaabatu sharia nag la ko teg ndax liberté it waxuñu ne mooy nit ki lu ko neex mu wax lu mel ne lii ñuy dégg nii nga xam ne kum neex nga dem ci rajo koo bëgg a saaga saaga koo bëgg a xas-xas loolu moom du liberté waaye lamb ju tas loolu waliyasu billah kooku moo xam ne euh, su amee ci am réew maanaam na jamono yi nekk mën na faa tàkk nit ki day wax loo xam ne lu waxu la di def loo xam ne lu defu la waaye xas ay kilifa ak saaga leen ak xas ay jàmbur ak saaga leen loolu mu bokkut ak liwet moo tax ca xutbaam bu njëkk ba nga xam ne booba sax jaayante gi yaatoogul waaye dafa dajale mbooloo lépp ñu ñëw xutba ba daf caa wax ne ñi ngi nii képp ñii ñoo ma tànn mooy waa ko Suleymaan képp ñooñu nag du ñooy xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam askan wi gën naa yaatu loolu kon man kenn tànnuma xalifa kon summi naa sama bopp seetal leen seen bopp ab xalifa ngeen tànnal ko seen bopp bi mu waxee loolu nit yoo ne ko yow lan bëgg yow lan tànn kon joxoon na leen foofu seen liberté pour ñu tànnal seen bopp ku leen neex ànd ak ne ci lislaam ni muy tëdd xam ngeen ne ak tànnam mooy nga xel lu ñoo la ñuy jël borom xam-xam yi ñoom la ñu tudde majlis shura ñi ñuy diisool mooy ahlul xall wal aqd loolu l'islam daf ko wutaleeg li ñu tudde tey démocratie nga xam ne dañ ne li gën a bari ci nit ñi lu ñu wax rek baax na l'islam xamut loolu l'islam lim lim xam mooy ñi gën a xam ci nit ñi gën caa jub lu ñu wax noona la moo tax ahlul xall wal aqd dañ leen di tànn borom xam-xam la ñu wax dañu xam adduna xam diine ragal yàlla yor ay xel itam na di jub ñooñu bu leen tànnee ba teg leen ba noppi nag ñooñu ñoo wutu xeet waaye mbooloo moo xam ne da ne li ci gën a bari rek nga xam ne band yaa ngi ci biir ay dofa nga ca ay caaxaan ka tanga nit ñoo xam ne xamuñu ñoom seen bopp sax luñ bëgg ñooñu ñuy tànn ka war jiite aw askan xam nga ne démocratie bokkut ak bokkut ak lislaam kon li ngay tuddee al musharaka fi ixtiyaar al xaakim an tariqi ahli al xall wal aqd kooku joxe na ko mooy tànn gi ñuy tànn njiit ahlul xal wala aqd ñu taxaw ci loolu defal ko seen bopp laa biir xaakim itam muy su fekkoon ne dara am na lu ñu ko war a laay biir déggoon nga la ma waxoon nee na woon fekk maa ngi topp yàlla topp leen ma su ma ko moyee bu leen ma topp ba tey ci wàllu nit ki lépp loo xam ne lu xalaat la tam doon lu jub mu mën koo wax loolu itam daf leen koy jox bam ba mu koy sëkk lépp loo xam ne nit ki xalaat na ko tam jub mu mën koo wax loolu moo taxoon mu bind nit ñi ne leen kuñ tooñ na nga ñëw ne tooñ nañ ma képp koo xam ne gis nga sa ko na nga ñëw ne jox nañ ma ko loolu loolu lay wane tax alqasim ibnu muhammad ibnu abi bakr bokkoon ci borom xam-xam yu mag yooyee bi omar toogee nag bay atte daf ne al yawma yantiqu kullu man kaana laa yantiq képp ku sañul woon a wax tey nag sañ ngaa wax ida lam yuxaalif shar mu ne su fekkee ne juyeewul ak mel na ne des ci waxtu bëriwut kon du ñàkk ñu jéggi yenn mbir am na fii yu am solo yoo xam ne yu ma ta bàyyi xel la muy taxawaay bi nga xam ne moom la taxawaayam ci ñu ñuy tuddee ahlu zimma mu ñu nekkoon ci biir état islamique bi te doonuñu ay jullit seen àq yi ñu doon xañoon yépp Omar daf leen ko delloowaat euh, bu fekkee dañoo xool nag maanaam li nga xam ne mooy li ëpp solo ci euh, xilaafa Omar ibn Abdul Aziz ak application yooyu nga xam ne def na ko ci euh, ni l'islam tere état ni mu war a taxawee ni mu ko dundee moom Omar li ko indi dëgg dëgg dëgg buñ ko xoolee danañ gis ne yar bu njëkk ba cala waaye yar boobu ni mu continuer moom di ko dund gannaaw bu mu nekkee amirul muminina loola mooy mooy lu rëy la ndax bari na koo xam ne dafay dafay yaru ci mbir waaye dem ba mu yàgg alalu àdduna di kël ko wala mu dem ba mu yàgg nguur di kël ko wala daraja yar bu njëkk boobee mu sàggane ko wala mu doyadal ko waaye moom nag mbir mi dafa ñëw mu yokkaat la nga xam ne moom la doon dund bu njëkk eh, mukawinaatu shaxsiya boo ko xoolee muy ni nga xam ne formation bi mu yoroon mooy yaru diine boobu ak kat ba fiq bi mu yoroon ak dund gi mu nekkoon ci biir nguur di dund di xool ya ca baax ya baaxul yooyu biñ àndandoo ñoo ko jox eh, sifaat qiyaadiya mu yenn qualité yoo xam ne ci wàllu njiite yoo xam ne néew na muy dajaloo ci kenn nit waaye ragal yàlla gi nga xam ne moo nekkoon ci xolam lu bare bare bare nag moo ko ko jox soxnaam Fatima bint Abdul Malik nee na Omar day doonul woon kii lu muy julli ay naafila ci julli bi ëpp lu leen ko woon Omar doonul woon ci leen dàq woor itam koori ngàtt nga waaye waat naa ci yàlla ne musuma gis ku gën a ragal yàlla Omar nee na daf daan tudd yàlla fekk mi ngi tëdd ci lalam day tiit jóg taxaw di lox ba mel ne picc moo xam ne dañ ko sotti ndox ci ci ab sedd nee na ba dama naan day suba bu ñuy xëy ñu xëyaale ab xalifa maanaam danañ fekk mu faatu mag xool day wax ne su ma giñoon ne mosumaa gis ku gën a dëddu àdduna ku gën a ragal yàlla Omar ibn Abdul Aziz nee loolee nag yiñ gën a doon dëkk Fatima nee benn bis damaa ñëw fi Omar fekk ko mu toog ci jullikaay bi ci biir néegam biir këram teg ab loxoom ci nga xam rangoon yi di tuuru ba di sotti ko ci sikkim bi nee ma ne ko yow amirul muminin lu xew noonu mu ne ma yow xoolal lii ñu ma yon lu toll ni xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon ay ñu am ñu ñàkk ma xalaat ne am na boo demee ñoo xam ne ñu ñàkk lañ ñu am na ñoo xam ne ñu feebar lañ te amuñu ku leen am ñu rof lañu sonn ñu amul luñ sol am ñoo xam tooñ nañ leen te kenn taxawu leen am ñoo xam ne tumuranke nañ am na ñoo xam ne boo demee ay prison lañ ci béréb am na boo demee ay màggat yoo xam ne màggat nañ te kenn taxawu leen boo demee am na boroomi njaboot yu bari ay njaboot te seen alal néew lool ñooñu ñëpp tasaaroo ci kaw suuf si ma xam ne lii sama borom dana ma ko laaj ëllëg te su boobaa kay taxaw di défendre ñooñu mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ma ragal ne su boobaa duma am aw lay loolu moo waral sama jooy yi nga fekk ma di ko jooy kon boobu yëg responsabilité euh, su fekkee ne xaatim muy koy àtte ak yëgal responsabilité àgg na foofu xeet wa nag su boobaa seen xel mën naa dal Malik ibnu Dinaar borom xam-xam bu dëgg àdduna te siiw lool ci loolu nee na nit ñi dañ naan Malik ibnu Dinaar dafa dëddu moom mooy wax a boppam de nee nañ man dama dëddu àdduna waaye te dëddu àdduna mooy Omar ibnu Abdul Aziz ndox nee na atatu dunia fa tarakaha nee na kooku adduna ñëw na ci kaw loxoom ba noppi mu won ko gannaaw kon dëgg adduna mooy adduna ñëw ci sa loxo ba noppi nga won ko gannaaw maanaam def ko moyen boo xam ne bu la jëmalee àllaaxira buy baaxal sa ëllëg la waaye bañ koo jaamu kon lu bare bare nag ci nit ñoo xam ne da ngay wax ne dañoo dëddu adduna fekk na adduna moo leen dëddu waaye du ñoom ñoo dëddu adduna kii nit ñu nekk ni dépense Omar nee na ñaari dërëm moo nekkoon dépense njabootam ci seen dëkki ak seen aj ak seen reer ci jamono yoo xam ne nee na am na ñoo xam ne ñi ko jiitu woon alfu dinaar doyu leen woon ñaari dërëm ñaata dërëm moo nekk benn dinaar hmm? wala wécce boobu moom dem na nee na lim daan ci ay yére yére yu ñagas la daan doon Omar bokk na ci loolu mooy bi mu ñëwee ba nekk amal muminin torox na boobu li may wax ci lu am solo mooy ki nga xam ne dafa ñëw ba agsi ci pouvoir bi ba àggal melokaan yi mu yor day wàll dem ci bi yëpp am na ku ñu wax Yaaqoob bi mu su ndaw soo xam ne su doy waar la su ma ta bàyyi xel tudd ko annaasu ala diini na ka jiite nam mel mboolee la ëpp ci ñoom noonu la mel jaru ci ay misaal yoo xam ne da ngay waaru ci yàlla ne diw sàngam nag toogee nangam la jublu nit ñëpp jëm ca loolu diw toog jublu nangam ñëpp jublu loola waaye Omar bi mu toogee melokaanam yi dafa yar doomi aadama yi dañoo soppi ak toroxloom ak woyefal boppam bokk na ci benn waay ñëw na ci moom bis ne ko yaa xalifat allahi fi l ard yow xalifa bi yàlla bi ci kaw suuf si Omar ne ko man day ña ma jur dañ maa tànnaloon aw tur soo lemee woon Omar danaa la wuyu ñaareel ba tànnaloon naa saa bopp aw bàkkentan tudde saa bopp abu xafs soo ne ma woon abu xafs danaa la wuyu bi ngeen la jëlee teg na fi itam wutoon ngeen naw tur muy amirul muminin soo ma ko waxoon danaa la wuyu amma xalifatullahi fi l ard fa lastu kadalik kii jiite ki ngi nekk xalifa bi yàlla ci kaw suuf kooka moom doonuma ko bokk na ci woyof lu googu ak torox lu googu mooy nit ñi daf leen a tere woon ne su ma génnee bu kenn jóg loolu nit ñi baaxoo bu nit ne fël rek ñëpp jóg taxaw wala muy dox mbooloo mi topp ci moom di dox xam nga ne Abdullah ibn Mas'ud benn bis génne na si jàkka ji lu mat fukki nit topp ci moom di dox mu geesu leen fu ngeen jëm ñu ne ko xanaa topp ci gannaaw bi gunge la ba nga dugg sa kër mu ne leen irjiu fa innahu zullun li taabi fitnatun lil matbu dellu leen parce que lii ngeen di def nii tooxtaane la ci ki yéen ñi toppee waaye fitna la ci man mi ngi leen di topp wax leen ñu dem toog Omar ibn Abdul Aziz da daan wax ne bu ma bu gisee bu kenn jóg taxaw su ngeen taxawee taxaw su ngeen toogee ma toog kon loolu ak torox la boo xam ne ci moom loolu la jógoon daf ko daan tere bu wér a wér a bokk na ci eh, da daan wax ñi nga xam ne ñooy xaras yi muy garde corps ñu nga xam ne ñoo yore arme beeg yu mel noonu xam nga ñooñu bu bu ñëpp génnee gaaw di nuyoo nee nañ yéen ginnaaw man maa dikk bu leen njëkkante di nuyoo loolu dafa juyoo charia man maa leen war a nuyu kon bu leen ma njëkk nuyu ba ba ma leen di nuyu yow li soo sowàll yoo xam ne boo ko da ngay defe ne amul solo dafa aajo ab lamp fekk bi bu toog ab làmpam di bëgg a mu jóg taxaw di ko defaraatal boppam am benn xulaam bu fa nekkoon mu kenn ci xale yi wala ci xale yu góor yi nga xam ne këram lañu nekkoon ñu ne ko amirul muminin ma defaral la mu ne lii lu muy di bi ma di dem di ko defare man maay Omar ibn Abdul Aziz bi ma ko defaree ba ñëw bay toogaat it maay Omar ibn Abdul Aziz ba tey kon loolu wàññiwul dara euh, lëwetaay ba ci li muy joxe misaal la moom itam nee na benn bés doomi Omar ibn Abdul Aziz dafa génn ci mbedd mi di foo ak ay xale ak xale xaañ ko bopp bi di nàcc ñu indi ko ci yaayam Fatima mu dégg coow li nekk ci biir kër gi mu génn Omar ne leen loolu lu mu doon yaayi xale ba ne ko ah, sama doom ji de moo def njaatam gi moo xaañ sa doom te moom ab jirim la nee mu ne ko ndax jirim bi bindal nañ ko loo xam ne moom lañ koy jox par nga ne ko déedéet nee na mu ne faktubu lahu daal di delluwaat ca biir bindal leen ko loo xam ne su weer deetee mu jot kon fi ñuy waxee di xalaat naan xaaj na xale bi xaaju ko moom xoolewul foofu ginnaaw ab diir la rek ndax am na ku koy taxaw wala déet loolu mooy xalaatam foofu nee na benn bis Omar ibn Abdul Aziz dafa nekk di xutba benn waaye ci biir xutba ajjuma bu mu jóg taxaw ne ko ashhadu annaka min al fasiqin mooy loolu mooy xawaarif yi bi mu ne ko wa yudrik ne ko li nga wax foo ko teg yow sab shahada ci boppam shahadatu zuur la maanaam nekkoo ku jub ginnaaw da ngay wax ci waxtu woo xam ne imaam a ngi xutba ginnaaw da wax ci waxtu woo xam ne imaam a ngi xutba kon yow sa shahada shahadatu zuur la benn bis Omar ibn Abdul Aziz day dox ànd ak benn gardien ci fajar gi jëm ci jàkka ja ndeke am na ku fanaan ci mbedd mi mu tekkitaloo ko te gisu ko ci lëndam gi waa ji yow ne ko xanaa dangaa dof xamut ku mu doon mu ne ko déedéet defuma de jéggal ma dem gardien bi ne ko ndax du ma ko jël yar ko mu ne ko déedéet daf maa laaj ndax dangaa dof nee naa ko defuma ay mbir la yoo xam ne nga xam ne dañ ne la waxuñu la ne moo jiite Sénégal wala wala moo jiite sax Arabie Saoudite wala fenn waaye adduna ci jamono yoo xam ne la tàmbalee ba ba nga dem France ci loxoom la lu mu xëy santaane lu nekk dañ koy def kooku wax dëgg yàlla àgg na koo xam ne euh, lu ko neexoon ci kaw suuf rek ci ak aju akub diis ak jafeel mbiram mënoon na ko def waaye nam ko waroon a mën a rek loola la suufee leen lépp lépp lépp ba a àgg ci suuf euh, moo tax Eh, anam gi nga xam ne moom la sóobu woon nag ci wàllu idaaraam surtout lu jëm ci wàllu koomam alal bi nga xam ne mooy alal réew mi ni mu ko doon ñoŋale ak ni mu ko fonke ak ni mu ko tege ci yoon ak respecté waxtu doomu aadama yi loolu daanaka def noo xam ne jàpp naa ne Omar ibn Abdul Aziz buñ jàngaatee siiraam dëgg dëgg dëgg bindaat ko ci wàllu administration dañoo war a delluwaat ci moom nag bu wér a wér su fekkee nit ñi bëgg nañoo xettali li seen réew yi lan ko feere lan ko def mooy def ne mboolem région yi benn bu nekk gannaaw boo xamee ne dajale na alali tooñaange yëpp ba indi ko ci baytul maal nga xam ne baytul maal alal la nekk mu ne leen baytul maal alal ju baree ngi fi waaye région bu nekk buñ dajalee la ñuy jël ci ay asakaas ya nga xam ne ay xokkoor yoo xam ne nit ñi dañ koy joxe ba àggal nañ xool jëmmi région boobu ndax lim soxla ci ay projet lépp mën na koo def wala déet su fekkee mën na koo def ba la ca des dañ koy indiwaat baytul maal su fekkee def nañ lañ jotoon a dajale lépp ba noppi nag dese ay projet yu sottiwut dañuy ñëw mu jox leen ci baytul maal ñu dem àggale lool noonu la pële woon euh, départ am ci wàllu finance ci wàllu ay salaire da doon jox nit seeni salaire bi borom xam-xam yi ñi ca ëpp njëriñ ci xeet yi tàmbalee ci muhaddisoon yi dem ci fuqahaa yi dem ci nangam kenn ku nekk tur wala yor ca la nga jàng sa salaire noonu lay toll xalaat bu mel noonu lu am solo la soññee la itam ci taxasus ak jéem a xóotal ci yenn xam-xam yoo xam ne xëy na yu bëriwut woon la léeg-léeg day yokk salaire a xam nga xam ne def na ko moo di bépp silmaxa bu am wut na koo xam ne moo lay wommat koo xam ne salaire la yor nga xam ne liggéeyam mooy wommat silmaxa si kooku wasaase wuñ yoneen moo koy fajal mboolem ay mbiram état bi di ko jox loolu képp koo xam ne dafa feebar wala ñaar ñu feebar ñu nekk am nañ benn surge boo xam ne mooy taxaw ci seen mbir moo leen di liggéeyal moo leen di yóbbu ñuy faju di leen delloo si woon àgg na ci ne nañ nañ seet ñi nga xam ne ñëpp dañoo yor ay bopp ci état bi ñu seet déclaré yónnee ci mboolem région ñu yor ay bopp mu ne ñoom yoreel bor ya ñëw wane luy firndeel loolu ñu fay leen bi mu dikkee ci trésor ci lañ leen fay ñoom ñëpp ñu dem kenn amatul bor ci état bi benn bés ci yi wane itte yi nga xam ne daf koy def dafa bind eh, Aboubacar ibn Hazm di ko wax ne ko su fekkee ne da ngay bindati fekk Aboubacar ibn Hazm daf koy Hazm daf koy yónnee benn leetar mu xool gis leetar bi gis mbind mi dijj ba noppi bind yu soree mu bind ko leetar ne ko da ngay wàcc këyit da ngay del bind mbind ma soo ko bind na jegee ndax këyit yi alal yu askan wi la du sa alal nga xool nag ci suñ jamono xam ne nit ki mën naa toog ci benn direction boo xam ne téléphone baa fa nekk téléphone état bi mën na ko wax ay soxlay boppam ay mbiri këram ay xaritam ay ñoomi demal dikk ñëpp ci téléphone boobu la leen di téléphone su bëggee yónnee fax yónnee ko ci kooku am na ay ministères yoo xam ne noonu tey dañuy wax ne ay deux cent millions dañ koy fay ci ay te boo xoolee li ëpp ci loola doonul lu bi kon yar bu mel nii nga xam ne kii di bind dañ la ko yow euh, seen mbind yi nañuy jógee te sol ndax këyit yi dañu yàqu ci koo xam ne wax wuñ ko ci ñàkk wax wuñ ko ci lenn waaye dañ koy wax ci ñoolal aralu askan wi ndax moo moo ko benn bés ay gan dañoo ñëw euh, Omar teeru leen guddi nga xam ne ab gouverneur ànd ak mbooloo ñëw ngir mbir mu aju ci seen région ci seen mbir mu toog di waxtaan ak ñoom ab sondeel di tàkk bi ñu waxtaanee ba jeexal ki leen jiite ne ko amirul mu'minin ne ko waa kër ga ak njaboot gi bi mu ko daataan tontu mu fay sondeel bi ne ko ñu ngi ci jàmm ñu nekk ci lëndëm gi ñu continuer di waxtaan ci lëndëm bi ba waxtaan yu jeex mu ne ko daal li ngeen ma ko bañ a laaj ne ko yow amee loolu moom ne damaa gis biñ ñëwee di waxtaan lampe bi da doon tàkk waaye nga jekk ba mu yàgg nga fay ko mu ne ko jamono yi nga lu jëm ca wàllu askan wa nga jógee te soldem bii ci baytul maal la jógee yëg naa ne sañoon naa koo taal bi dara desul nag laaj sama njaboot xam naa ne soldem bi sañatu la tàkk ndax moomuñu ko moo tax nu fay ko kon melokaan yooyu yi defe naa ci biir xeet wi fu ñuy jaar nag ba mu dellusiwaat mooy fenn fa rek yarub diine ba ak jàngal ma ak wane nag ay exemple yoo xam ne dañ koy dund ci kanam doomu aadama yi di ko gis léeg-léeg li ñu tudde bureaucrate yoo xam ne euh, day am ay ay gestionnaire yoo xam ne directeur bi lu mu leen wax ñu laajaat ko leneen lu mu leen wax ñu laajaat ko leneen benn bis dafa bind benn gouverneur am ci Madina ne ko joxal doomi Ali ibn Abi Talib ashrata alaf dinaar seetal doomi Ali ibn Abi Talib nga seddale leen dix mille dinaar kooko ab leetar ne ko Ali ibn Abi Talib day dafa am ay doom ci mboolem famille yi nga xam ne ñoo nekk Quraysh ñenn ci doomam yooyu la jublu Omar bindaat ko ab leetar ko day su ma la bin ne la rendil gàtt bi sax da nga ma laaj ndax bu ñuul bi wala bu weex bi jox ko ay doomam ci Fatima ndax ñooñu mooy ñi nga xam ne yàgg nañ leen a jox ko ay doomam ak Fatima ndax ñooñu lañ yàgg a tooñ kon façon ak fasine euh, am na ñoo xam ne ci wàllu wàllu idaara dañ cee am problème mooy amuñu benn mu baagara sox si yéen lu mën a doon lu tuuti tuuti rek dañuy dellu ci këleen féete kaw laajaat leen ko kon kooku jëkk naa joxe leçon foofu moom Omar ibn Abdul Aziz ci ne am na yoo xam ne jarul sax laajaat ginnaaw nee leen di jox leen mu jeex résultat nga xam ne Omar ibn Abdul Aziz ak liggéeyam bu rëy boobu moom la jur moo dem na ba li ñu tuddee tawaasun am mooy askan wi ay boromi alal yu dem ba jéggi dayo amatul waaye ku ñàkk itam amatul maanaam ñëpp am nañ li ñu dundee suñu wér ci lislaam nag ñëpp am nañ li dundee mooy kenn ku ne am nga loo dundee at sa dépense at mi ngi yow loolu alal ju bari la kon euh, loolu moo tax dem nañ ba jëmmi jamono. am na ay régions yu bari yoo xam ne di muy génne seen asaka di seet kuñ ko jox amatuñ ko fu ñu wër wër duñ gis koo xam ne ku ñàkk la ku yowoo asaka suñ xoolee rek gis ne kooku yowul asaka ñu yëgal ko Omar mu ne nañ ko def ci baytul maal commencé nag di xotti yeneen projet yoo xam ne yu woon nañ ci ci wàllu mbay ay canalisation yoo xam ne ci jamono yooyu la tàmbali woon buñ waxee ni mu meloon ak ni nit ki daan bàyyi ci jamono yooyu da ngay dem ba ne ah ñii kat moom fañ nekk mbéyutum ñoom noonu raw Ibnu Kasir nee na Euh, Omar ibn Abdul Aziz mi ngi ñëw gannaaw Suleymaan ibn Abdul Malik lam fa am mooy ñaari at ak genn wàll waaye nee na diggante boobu soosal na suuf suuf la wax de maandute nee na alal ji tuuru na ba waa ji da daan tëdd di xalaat man de xaw ma sama saras yi wala sama alal ji nan laa koy def te nit ki da daan tëdd ba guddi loolu nekk njàqareem alalam ji nga xam ne génn na sarax si ba noppi wala asaka ji ba noppi te xamut kan la koy jox nee na da daan doon njàqare bokk na ci résultat yooyu mooy maandute bu demee ba am ci kaw suuf am na kéemaani yàlla yooyu feeñ su yoo ko tudd na ko ak ñeneen nee na dem nañ ba gis ne till yi till yi ngeen xam ci àll bi dañuy for ci àll bi am ak jur gi te duñ leen laal ci xil xilaafu Omar ibn Abdul Aziz nee na ci ñoom bi ba gis loolu daf ne subhanallah li bur fi ranam ak till bu nekk ci biiri xar nee na sàmm ba ne ko ida salaha ar-ra's fa laysa ala al-jasadi ba's su fekkee ne bopp ba ko ko jiite yaram ba lu bon dootu a nekk Malik ibnu Dinar Aziz bi mu nekkee ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci àll yu sori ya daan sàmm dañoo dem ba mu yàgg ñu gis till ya ak jur ga joteetuñ dara nee na ñi am xam-xam ñu laajte ne waaw kan mooy nit ku baax kii nga xam ne moo nekk xalifa léegi ba tooñ amatul ci kaw suuf ba till yi ak jur yi joteetuñ dara Moussa ibnu Ayan nee na benn bés danoo nekk ci àll ba di sàmm fi fu ñuy wax Kirmaan ci xilaafuk Omar ibnu Abdul Aziz nee na jur ga ak euh, till ya ñuy for ba am genn guddi rek ñu gis till yi songu jur gi nee na am ku naa ah, am na ku ku fi nekkoon ku fi war a jóge de nee na buy seetloo guddi googu dafa dëppoo guddi gi Omar ibn Abdul Aziz génne àdduna kon loolu ay mbir la yoo xam ne sunu borom tabaraka wa euh, euh, ci lu gàtt ñaari at ak genn la fa nekk ci atum téeméer ak benn ci la génn àdduna bi nga xamee ne Omar feebar na ba nekk ci sakaratul mawt nekk ci sukuraat Maslama ibn Abdul Malik dafa ñëw ne ko day yow xam nga ne fi mu nekk yaa ngi nekk ci situation kuy bëgg a génn àdduna yaa ngi fi bàyyi sa doom yi ñu doon doom yi tuuti amuñu alal joxoo leen dara li ma bëgg mooy nga dénk ma leen moom ci buur yi la bokk su ko defee ma yore leen sa gannaaw Omar daal di jóg di daal di ne waat naa ci yàlla ne terewu ma leen àq joo xam ñoo ko moom waat naa ci yàlla it ne joxuma leen loo xam ne moomuñu ko daal di ne yéen xam leen ne sama doomi ñaari nit rek lañ koo xam ne ku baax la ku ragal yàlla te ki baax ragal yàlla yàlla moo ko defal maxraj ëllëg moo koy ubbil bunt wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wala koo xam ne mukibun ala almasiya wala koo xam ne mooy yàlla lay liggéeyee falan akun uqawihi ala masiyatillah kooku du ma ko dëgëral ci mooy yàlla mukk ki baax daal yàllaa koy sàmm ki baaxul nag du ma ko def sama alal ma di ko bone daal di ne wool leen ma sama bone ñu wooreen ñu indi leen muy toll ci fukki xale ñu tuuti lool jeex lool raf la loolu itam subhaanallah mu xool leen daal di ne ah yéen day bi mu koy wax nag rangoñ yaa ngi tuuru rahimahullah mu ne yéen samay doom xam leen seen baay day dañ ko doon tànnaloo ñaari mbir benn mu def leen ngeen doon ñu riis bari alal doon ñu feesati koddaay door nga suur lool bu ëllëgee mu dugg sawara wala ngeen mel nii ngeen mel bu ëllëgee mu dugg àjjana loolu moo tax seen bàyyi tànn nii ngeen mel daa dina ne walakin inna waliya fikum allah alladi nazala alkitab wa huwa yatawalla saalihin dénk naa leen sama borom tabaraka wa taala daa dina in sarifu asanakum allah man ngeen a dem yàlla na leen yàlla mosal xale yi daal di jóg dem mu tàmbali di tudd yàlla ci ak ragal yàlla am ko ñu ko xamee woon di fàttaliku boroomam eh, nee na du noonu lay def di ko def ba mu yàgg ñu dégg ko mu jàng tilka daaru alaxiratu najcaluha lilladina la yuriduna uluwan fi l ardi wala fasada wala aqibatu lilmuttaqin lii la mujj wax daal di génn àdduna rahmatullahi taala alayhi kon kooku mooy Omar ibn Abdul Aziz wala lenn ci dund Omar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala jaamu bi yàlla boo xam ne ci lislaam lañ ko yar ci lañ ko formé yàlla teg adduna ak ci biiram ci kaw loxoom faalewu ko dund diineem ak nit ñi ci loola wanaat leen ne alxuraan mii ak sunna mii kat saa bu ko nit ñi jubloo mën na leen a defar du caagi ni saxaaba ya dong la mën a defar waaye lu àdduna yàgg-yàgg ñëpp la mën a defar kon yal na nu yàlla borom bi tabaraka wa taala may ay njiit yoo xam ne dañuy taafu ci melokaanu Omar ibn Abdul Aziz radiallahu taala anhu wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Thank you. jazakum allahu xayran cheikhana asa allah subhanahu wa taala an yaktub lakum al ajra wal matluba fi hadihi al muhaadara al qayima ñu ngi sant eh, suñu cheikh docteur Mouhamed li nga ci muhaadara bi aju woon ci islam خلافة عمر بن عبد العزيز لم يجد يوم الإسلام بجهة إسلام خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله يتوسع الأمثلة ويخلي يتجمع ممكن توصل التجمع بالدماء لأبي في أمره لما تحولت lu mel ne fexe ba service bi jàmm dégluwaat te nan ko bëggee yooyu nekk na waxtaan yu ñu nekk jubluwaayu fépp wax laaj yi nag bëri na trop te waxtu bi comme ni nga xam ne xam ne li def suñu ak doro ko ina ko suñu sa juróom moo tax ba ci jëkk moom nii rek fépp koo xam ne bëggoo sa laaj nga jéggal ñu xam ne waxtu xam yi moo tax ma ñu doon ci laajam laaj bu njëkk bi waaw Inițiativă 11 cred că. L-am gândit că de ani, nu pe la în oră de prihabit, euh, la mea pe oră de ziua, la ziua de la لا تدريك الجاهلية السؤال هل يمكن الاستدلال في الحديث على وجود التحريك في الانتخابات؟ xarit bi yéen ci sama tool dafa ne képp koo xam ne jëm nga àdduna su ko foo bayaan ak ak ilimaan boo faatoo dafa mel ne da ngaa faatu ci ak ceeb la ñu laaj ndax loolu ci dégg na kon bu ay élection amee ñëpp dañoo war a wate ngir mën a am imaam bi mel noonu alhamdulilah eh, li ñu njëkk a wax mooy xadis boobu xadis bu wér la ñu ngi ci saxee bu muslim man maata ku faatu sa fekk ak jaayante nekkul ci aw loosam ak dee jàpp la dee borom xam-xam yi xadis boobu nañu ko firee mooy jaayante gi nga xam ne mooy amirul muminin maanaam xalifatul muslimin boo demee ci silsilatul ahadis saxiha Cheikh Nasruddin al Albani fi mu taxrija xadis boobu ba àggal daf ne li ñu ci jublu day moo di bayatu xalifatil muslimin maanaam njiitu julli bi jaayanteeg moom mooy koy atte wal islam sharia mu ne walaysa kama yadunnu lbaadu maanaam li jaage ne ni ko ñenn ñi jorte yaakaar ne mooy bayatu shaabi li raisihi aw li xisbihi mu ne fa inna hada huwa lixtilaafu lmanhiyu anhu fi sharia mu ne du li ko nit ñenn ñi jorte muy waa parti bi ñëw dugg ci seen parti wala population yi euh, ñu ñëw jaayanteeg seen rais ñu seen président nee na du loolu loolu moom leneen la ndax nee na tàqalikoo boobu beneen tàqalikoo la boo xam ne amul sax sharia waaye li ñuy wax foofu ñaari mbir la benn mooy dafa am ci lislaam lu ñuy tuddee nawazil mooy ay mbir yoo xam ne situation yoo xam ne am te fekk amul woon bu jëkk ci biir lislaam loo xam ne dañ ko préparé waale ci Euh, ay ahkaam la ñu tasaaroo doon ak fiq boo xam ne dañ koy jël ci kaw ne bu demee ba jëm ni jamono kenn attetoowul sharia bu boobaa def leen ni ma la ngeen def nii déedéet loolu moom amul loolu duñ prévoir lu doon xadis a solay sax yi nga xam ne liñ jëriñ ca lu mel noonu mooy su nit ñi demee ba yàgg amatuñ imaam amatuñ jamaa bu boobaa nan la ñuy def mu ne leen bu boobaa beru leen wala si rek kuréel yi nga xam ne ñoo am beru leen leen foofu rek lañ am ci loo xam ne dafa woon loolu la waaye li wér mooy lu dangereux mooy nga jël xadis yi nga xam ne dañuy àtte ci biir état islam bu taxaw li nga di ko àtte beneen état boo xam ne taxawul ci islam loolu soo ko tàmbalee rek loolu mooy indi fitna danaa ko faral di wax mbokk yi loolu boo jëlee xadis bi yoo xam ne jaayante dafa waax nga ne kon damay ñëw wax ne jaayante ak njiit bi fi nekk dafa war ndax lislaam ko wax kon yaa ngi ñëw di atte woo sharia ci société boo xam ne dafa lay moom atte woowul sharia moom ci boppam nga ñëw di dal ko ci atte kooku bi yem ci xadis boobu da nga dem ba beneen xadis ñëw taxaw boo xam ne moom itam mi ngi ci saxiixu muslim mu ne bu fekkee sax dañoo jaayante kenn ba mu taxaw keneen ñëwati yunaziuhu fadribu unuqal axir minhuma su keneen ñëw di xëccoog moom yàlla rey leen ku mujj ko kon kooku lim lay jural moo di parti yi nga xam ne dañoo taxaw nekk ci opposition bi yépp nga xam ne dañoo ñëw di xëccoo nguur bi comme nag a jël yaa sa kon bul dugg ci atte woo société bu laay ngi ñëw di ko atte sharia parce que ñoom atte woowu sharia kon nan laa def mooy l'islam portol ku nekk am na loo xam ne loolu moo ko nekk waaye nit moo tax diraasatul waaqi lu mu ci naan Ibnul Qayyim daf koy wax day wax ne euh, istaa ak xabaa muy mufti wala xaari bi faaw mu am ñaari fiq bi ci jëkk mooy fiqhul waaqe mooy xam li am lu mu doon ak fiqhul waajibi fil waaqe situation bi am lan moo la ci war yow dem nga ci jëmmi jamono nit ñi attewoo duñ ko yeex la jiitu ma yow jéemal góorgóorlu liggéey jàngale yaax fexe ba loola jël si waat loolu ma liggéey bu njëkk beneen bi ci def dem nga ba situation wote ñëw woote mooy ñi ngi tànn koo xam ne moo war a jiite réew mi te kooku yéen jiite réew mi moom ak nekkam fi ñëpp a cay am jeexi maanaam mbiram ak baaxam ñëpp a cay jëriñ ak soxaanam itam ñëpp a cay lool kon su boobaa yow mi nekk ab jullit boo xam ne day xalaat ci loo xam ne day jëriñ réewam la day jëriñ diineem la xoolal ka nga yaakaar ne moo gën a jëriñ diine ja ak réew ma soo bàtt nga sànni ko foofu la sa kàttan toll boo jëmee xool sa xooru bopp nag xool boo gisoo kenn su boobaa nga tey soo loolu moo fi am société boobu loolu borom xam-xam usul moom la ñuy wax irtikaabu axafi dararayn maanaam ñaari noor suñ dajee nga jël ba ca gën a woyof maanaam suñ ne daal beneen yi moo xam ne mu bon la ak beneen yi moo xam ne dafa bon a bon su boobaa jëlal mbir mi nga xam ne dafa bon parce que moo ko gën ginnaaw ñaari yooyu daw leen am bul bàyyi ba bon a bon a bon a bon muy ñëw kon jëlal rek di bon parce que li ate wowu sariya moom li loolu mooy dara baaxu te loolu moom mooy liloolu waaye nag mën na yoo kanente bu baax a baax a baax kon nga xool ki gën a kanente jëf nga ate nga watee jazakumullah xeyran keneen ki dafay laaj mu ne maa mawqifu muslim fi as-sawat al-arabiyya al-mu'asira علما بأن نصر وتشجيع غير الحق يخشى منه الذنب وهم إخواننا من المسلمين وعن الأشغال العربية lan mooy taxawaayu ak jullit ci révolte yi nga xam ne moo am ci jamono yi ci te loolu nag xam nañ ne dimbali dëkk te dëgëral ko la ñaa ko def tam baaxaar nag ñoom la lan la ci lan bi kon na ba noppi li mu mooy ba léegi ba fi nu toll bii parce que mbir la moo xam ne li ma koy waxee ci sama sama benn maqal moo bind damay wax ne fii ne li xew nii euh, daanaka moo euh, saxaar boo xam ne dafa rëcc di dem bopp ba dañ muy demal boppam te kenn xamagul fu mu fu mu jëm maanaam saxaar bi daw ci biir ak quartier boo xam ne mu ngay daw di dem rek te bopp nekku ca loolu la mel ndax mbir mu xam ne ñëpp ànd noonu jóg te daanaka amuñu kenn xamul lu ñuy def ak lu ñu war a loola kenn mu jëm ba léegi yàlla rek moo ko xam waaye damay wax ba léegi li ci juddoo ci lor moom mu ëpp li ci juddoo ci njëriñ bokk na ci li ci juddoo ci lor mooy bakkan bi bari buuru te doon bakkan yi jullit yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mabbu kaaba bi moo gën a woyof tuur deretu benn jullit boo xam ne yéewul ñi tuur deret mabbu kaaba ñaata bakkani jullit yoo xam ne duñu def dara moo tudd ci dëgg dëgg saa rek lañ bari na lool te tuuruñu ko ci xam ci ñu dul xam que ko tudd beneen bi ci des mooy man damaa ma gën a am njàqare ci mbir mi ni ñu doxal ndax jullit yi ci seen jëmmi bopp ak seen i njiit ak seen i xalaat daanaka dañoo toog seetaan nga xool occident ñoom ñoo itteewu mbir mi ñooy daje di ko étudier ñooy daje def ay réunion ñooy def ay congrès ñooy xool ñoo koy orienté itam loolu doy na sii daage beneen sii daage bi gën a rëy boobu sax mooy ay mbooloo jullit yoo xam ne dañ leen a na bu yàgg ci woote ci lislaam ak atte wa sharia dem nañ ba léegi drapeau bi ñuy yëkkati ngir bëgg ñu bañ leen a tuumaal mooy état bi ñu soxla mooy état civil boo xam ne duñ wax ne état l'islam lay doon kon mbir moomu mu gaaw maanaam mbir mi àggatu ci ñu naan kii dafa nekk xuróoj ala xaakim comme ni ko ñenn ñi waxee warul ko waaye xuróoj ala sharia lay bëgg a doon maanaam sharia bi nga xam ne mooy sharia yàlla la suñ demee ba ay wootekat yi l'islam yu mag sañu taxaw ne léegi gat ñun état bi ñu soxla suñu defee réunion yi ba àggal mooy taxawal état boo xam ne état civil lay doon muy dawla madaniyya boo xam ne ñëpp a koy bokk ñëpp bu ñu wax ne lislaam bi ñu àtte woon loolu ci demee ba àgg ko koo day ñëw mosu doon ñu bëgg a feeñ mi daal xanaa ku julli toll daal di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu dab xeet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgëral euh, daal diineem ànd ak lor bi bari bi ci nekk wëlbati ko ay jariñ nekk ci ci julli bi ñaan boobu rek la ci julli am ci toll kon buñ dellusiwaatee incha